jërëjëf gars yi mbokk yi am mbégte kontaante bu baax a baax pour ñu ñuy suivre ci ETDR Média di leen nuyu saa su ne fi ñu leen tàmm di leen nuyu di leen toppal lépp luy làmb lépp luy actualité bokk ci réew mi dañ koy jëli jox ko ñu ñuy suivre dañuy bàyyi xel saa su di wax ngeen wéy di abonné waaye di bës notification bi ngeen di mën a am vidéo yi comme ni ngeen ko bëggee saa su ne tey nag ñu ngi waat biir géejawaay seet si kenn ku nga xamante ne bi frère la ci Fils de Balla muy Papi di grand frère am seet si ko nag mu am lu mu bëgg a leeral ci combat bi nga xamante ne bii àdduna ñu ngi ko doon xaar mu doxoon ci diggante Fils de Balla ak ki nga xamante ne mooy Sokh ndax combat bi taxawoon na ñu dem ba ci biir delloo avance am lépp rek dinañ ci waxtaan ak moom dañ koy nuyu bàyyi ko mu su ko defee ñu wéyal waxtaan mais fekk naa ko mafia bi ku ci mel ni ñoom Landing ñoom Dame ak gars yi nga xamante ne ñooy mafia waaw ak Saar bu Saar bu Fils de Balla ñëpp ngi toog ah dañ leen dañ koy nuyu moom papi bàyyi ñu ñuy suivre su ko defee ñu wéyal waxtaan bi papi maa ngi lay bëgg baax a baax di la si waaw Cher suma xarit maa ngi lay nuyu di di nuyu waa ETDR yëpp di nuyu sa patron Kanj di nuyu waa kër Kanj production yëpp waa di nuyu Sénégal di nuyu monde entier di nuyu waa Géejawaay yëpp waaw ñu ngi nuyu waa Géejawaay yëpp di sant waa Géejawaay yëpp waa avant may wax dara nag damay masawu sunu frère ndax maa ngi door am occasion sunu frère sunu xarit sunu dret muy lag de waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla foofu mu nekk yàlla gaaw génne ko fa ndax géejawaay kenn yéenew ko ko Sénégal kenn yéenew ko ko waaw me nattu nag du wees waaw nit nattu moog àdduna ànd waaw te ñu ngi koy wax ne lag lii du dara foofu ay nit yu baax a fa tëdd ay jàmbaar a fa nekk ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñu fa nekk ñëpp yàlla gaaw génne leen fa waaw di ko ñaanal bu baax di ko wax courage géejawaay ñëpp a ngi sa ginnaaw notre frère Lac de Guiers nañ la di jaale Pambay ñu dégg ne démb yaayam dafa wàcc liggéey te Pambay bokk ci ñun ñu koy jaale yaayam jooju di ko ñaanal fu mu jëm gënal ko fii mu jóge yàlla xare ko ci aljana yi gën a kawe góor soog tamit ci njabootu làmb la bokk dégg nañ ne papam dafa wàcc liggéey waaw ñu ngi koy jaale bu baax na nag góor nit ku baax la nit ku yaru la di ko jaale papam di ko ñaanal tamit fu mu jëm yàlla gënal ko fu mu fi mu jógee yalla xare ko ci aljana yi gëna kawé mi ngi non euh, di wat bu baax baax la de di wax euh, naté bi tegu ci kawam yalla nako suñu borom teggi té yalla nako yalla yàlla bu ba mu ñëwaat ci suñu biir ndax suñu lo bokku waye tamit Aziz Pambay nek école Mor Faram tamit ñak way juróom bu jigen dem mo nekkon sarax bi di ko wat yalla na suñu borom gën ko dolli yërmaan te jégal ko kenen tamit ci biir lamb mi góor a ci biir lamb la bokku bu ñaké way juróom bu goor tamit ñu ngi ko koy jale di wax axlu lamb ñu ngi bokk mom naqar bi di ñaan yalla yalla nako suñu borom may xolub muña mais papi bu lol Euh, fii sa Balla dafa jóge woon ci combat mag Lac Rose combat bi ñu gis ni mu jeexee ñu bëree ba tëw ñoom ñaar ñu disqualifié leen ñu match nul fii sa Balla nekk ci li mu war a nekk Lac Rose nekkaat ci li mu war a nekk ba diggante bi Lac Rose am combat di préparé diggante mag Jackson mais fii sa ci moment boobu mi ngi toog amul combat bi jógee ci Lac Rose yéen a woon mu jël combat wala promoteur yi ñoo ko seetsiwul woon. waaw bon avant tout nag damay nuyu waa alburax yëpp ñooñu dama leen fàtte ndax alburax ñooñu dañoo bokk ci ñun waaw ah, Aziz Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm ndax moom tey lu ñu am ci làmb rek Aziz Ndiaye dañ ko koy sante ndax lépp ci këram la débuté waa ah, ba ma koy njëkk fekk këram waa ah, ne ko dama am ay rakk yu bëree dama bëgg nga teg leen loxo jàppale leen sama premier combat rakk yëpp moo ko tëgg ba nit ñu toll nii ba am tur ba tey ku nekk mën leen tëgg ñu ngi koy sant mook Baye Ndiaye ak ñëpp ñu ngi leen nuyu ak waa Alburax yëpp waaw mais bon Fils de Balla Jackson tëb ñu ngi koy ñaanal ci làmb ji mu jëm mook Lac Rose yàlla may ko ci ndam lu sedd guy kooku doomu waay la birima waaw bon Fils de Balla nag bi mu jugee ci làmb jooju ba léegi tamit bon vraiment xam nga nit rek boo jugee ci yenn combat yi wax dëgg yàlla après day laaj defaru ku ne xam na ne Fils bala Balla daanuwul nag lamb defe te fi am match nul ak victoire Fils de Balla daanuwul de mais Sénégal yëpp dañ ko jox defet ndax wax dëgg yàlla nag mbër am na fooy toll ba ñu dem ba jàpp ne waratoo daanu kon kooku da nga war a góorgóorlu da nga war a yokk say coono yokk sa jom yokk sa xadar ndax sëgam boo match nul lee ñëpp ne du yoon kooku da nga cee war a teg sa bakken waaw te Fils Balla deful lu dul match nul Lac daanu ko Lac Rose tumuwu ko Lac Rose bërewu ko sonalu ko kon bu match nul amee dañuy war a jàpp ne match nul kese am leneen amu fa boobu ba léegi nag bon encadrement bi yoo ko téye bëgg mu waat bu baax nak lamb jo da ci amoon ay blessures yu metti boobu ba léegi waaw diggante mag la mu ngi doon faju ba jamono ji ci ginnaaw lu am tan commencé waat na ay entraînement am nekk ci ndànk-ndànk ñu doon xaar bis bu rafet waaw. doon xaar bis bu rafet après ñuy coow combat mak euh, par la suite jul antu problème mu euh, kase la ba tey ñuy déggaat diggante mag soq ñu ngi doon coow mais diggante mag soq coow dafa xawoon bari trop. ci ne ko jël du ko jël yooyu noonu. waaw bon soq moom xam nga soq champion la te moom it wax dëgg yàlla jàmbaar la wax na ba wax naa wax a wax ba bokk ci jàmbaar yi waaw mais daal Fils de Balla ak soq boo bëggee dëgg dëgg Sénégal géejawaay ay supporteru Fils de Balla ay frère Fils de Balla kenn bëgg ko mais xam nga nag des fois lamb coow dina ko dëgg te ku ne xam na ne soq bu xëyee rek décider langal la ko rek. non dalay sonal sonal goo xamante ne mën ngaa jël avance bi sax te doo ko tey tey Fils de Balla ku ne xam ne ne bañkat la Fils de Balla ku ne xam ne dafa am benn xadar boo xam ne dafa nekk ci moom soq ni mu doon communiquer dernière minute yi wax ba tudd dépassé tuuti ay ñàkk jomma ak ay ñàkk fayda loolu moo siisuloo Fils de Balla ba fis de ball ba muy jëlee avance bi tàggul kenn ndax dernière semaine bi ni ñu ci doon waxtaanee soq yi mu ko doon wax métti na ko métti goo xamante ne bëggoon na ko corriger kut bëggoon na dem jëlé avance bi corriger ko nak mom nee loolu la bëggoon bëggoon nak bo gisé communication yi sama ko doon def sa bëggoon fi sa Balla mer dem jëli combat bi mo taxoon mu doon communiquer no mais loolu du jikkoom waaw mais lamb nak d'habitude ñom nañuy xolaat seen communication gis nga nit mën nga bëgg bërek mom moom dëgg yalla kenn du téré kenn communiquer mbeur am nga droit tekk mbeur bu la neex am nga droit xol ku la neex ne mom ngoy bërel mais xam nga bëre tamit du force ba paré yeen communication ñom nañ ko xolaat soq tay dafa yor jabar yor ay dom Fils de Balla dafa yor jabar ay doom mbër yu bëri dañu yor jabar yor ay doom yor ay yaay te am na yoo xam ne boo tiimee ba nan ko da nga ñàkk jom da nga ñàkk fayda loolu wax dëgg yàlla bokkul ci làmb quoi mun ngeen tëkkonte tàppet nga ragal ma duma yooyu yëpp ci làmb la bokk mais tey am na benn instant boo xamante ne yenn communication boo ko ci dugalee Fils de Balla gis na ci boppam Fils de Balla bi muy jëlee avance bi tàgguwul ku yàlla bind ndax soxu merloo woon na ko siisuloo woon na ko bëggoon na forcer dem jëlee avance ñaan nañu ba sonn nag Isaballa boo xoolee dernière minute yi dernière semaine bi topp nañu ñaan ba sonn nañu nañ ko bañ bu jël combat bi ndax soq dafa bëri wax da ko bëgg a mais ñun Sénégal dañu waxante dëgg géejawaay tey Balla Gaye 2 am combat capital soxla waa géejawaay gi yëpp Fils de Balla war a dar Balla Gaye 2 ñëpp ànd ci ginnaaw Balla gay 2 dooleel ko ñu ñuy bëri ci bis boobu kon yéen euh, diggante Balla Gaye Tapha Tine bi ñu bëgg a dogal fii sa Balla moo leen moo tax loolu moo ñu njëkk arrangé wul déjà lamb ji dafa am ay ñetti point yoo xam ne moo tax fils de Balla delloo avance bi mooy force na jëli avance bi te tàgguwul kenn ndax soq ni mu ko doon poussé ci communication bi ba merloo ko mu forcé na day jëlee avance bi duma ko mais dem nañ ba bet ba mu jëlee avance bi ñëw ba woo ñu ñun ñëpp ñu wax ñu ko ñu toog step bi ñëpp a rejeté avance bi ndax déjà journée bi baaxul ndax Balla Gaye ku ne xam ne ne mooy géejawaay yi Balla mooy làmb mooy géejawaay yi dem ci journée boo xam ne dafa capital ci carrière am journée boo xam ne dafa capital ci moom waa géejawaay bëgg journée boobu bëgg ko lool bu jaral ñu lu nekk tey wax dëgg yàlla Balla Gaye xanaa ku ko doolelul nag doo wàññi dooleem ci combat boobu tey Fils de bu jëlee ci combat bi dañu waxante dëgg nag day wàññi dooleem ndax Balla Gaye tey bu war a ñëw école boo jël xaaju booy dem ak moom Fils de Balla jël xaaju booy dem ak moom ku nekk di préparé wu mais wax dëgg yàlla loolu day wàññi lu bari. mais ma yaakaar loolu tey dafa war a yombal liggéeyam ndax Balla Gaye di préparé Fils de Balla di préparé même préparation la war a nekk. waaye loolu loolu bokkul gis nga ay mbër sa patron am na yenn combat capital yi muy am. ñëpp war a mobiliser nekk ci ginnaawam. ndax ay contact moom ay contact dalanteeg yooyu bu bu ñu amul combat ci lay gën a neex tey Balla Gaye bu fils de Balla ñëw dooleel ko booy école ba yëpp ñëw na ci ginnaawam ñëpp dooleel ko pousser ko vers la victoire loolu moo ëpp solo tey Balla Gaye fils de bala bu amee beneen combat te Balla Gaye amul combat ñëw jàppale ko ñoom saa ñëpp ñëw dooleel ko géejawaay jëm na ci ginnaawam loolu day gën a doole. mais ñun vraiment ñun staff bi ba ñu toogee waxtaan kenn buggul combat Balla Gaye bi fils de Balla bëre ci ndax bala Gaye tamit wax dëgg yàlla dafa soxla soutien waa waaye yëpp ci làmb ji ñëpp war ko taxaw ñëpp war ko dooleel. moo tax ñun ci première point boobu ñu ne Balla gay Fils de Balla mun a bëri ci combat Balla gay bi ñu jëm. mais tamit euh, am naa tamit ci écho yu ma dégg ñu ne est-ce que Fils de Balla ragalul ñu tay la ko ci combat boobu moo tax nanguwul ñu dugg ci combat boobu. ay tay moom yooyu moom xam nga sénégalais dañuy tàmm ay mots yoo xam ne léegi dafa amul benn sens ay tay la ay saraxe ay dañ ma jaay yooyu amul ci Sénégal Balla Gaye wax dëgg yàlla Balla gay ban intérêt la am di saraxe Fils de Balla Balla Gaye bu bu bu ñu bokkee journée da lay lenn dina bëgg Fils de Balla am ndam mu am ndam Fils de dina bëgg Balla Gaye 2 am ndam am mais yooyu dafa am ay nit yoo xam ne dañ koy wax di yàq seen i xel ak gis nga gis nga ko ci commentaire yi genre wax yooyu la ñuy wax te yooyu wax dëgg yàlla wax yoo xam ne war na sax jëm kaw loolu écho moom ceer amul njariñ quoi. mais tamit sox comme li dal fii sa Balla dal na ko ci diggante bala Gaye 2 ak Eumeu Sène seen deuxième combat bi sox moo bëre spécial Eumeu Sène bëre grand combat diggante moom Balla Gaye 2 te ñoom ñoom ñëpp ñoo bokk am ndam

vraiment loolu bokk na ci point yi tax ñu delloo avance bi. mais gars yi nag bi nag mooy fii sa Balla parewul sa soq sa wax na ko ci communication am. soq moom xam nga soq moom ku ko topp ci ay waxam. di nga dóor sa doom ci erreur. Ah, soq moom wax dëgg neex yàlla. la guddi yi ñu toll nii. moo ko fils Balla tant que estafam bi ñu ngi dund lu ñu bëre. ndax làmb da leen boolewul. yàlla est-ce que Fils Balla war na mën a bañ soq tamit loolu laay laajte. dafay bañ pire. Fils Balla day bañ soq pire. staff baa ngi nii toog ñooy décider te duñ ko jël waaye soq loolu ay jamono la. géejawaay bi nag kenn kenn daan ko fi de. mais làmb ay moment la. Jackson bërki démb daanu ko fi jël spectaculaire boo xam ne ban. waaye ba làmb sosoo ba léegi jël bi Jackson daan soq loolu làmb dootul amati jël bu bel noonu. waaw loolu jël la jinne boobu soq na dem jaamu ji Jackson waaw voilà ndax àdduna am na loo xamante ne wax dëgg yàlla day am des hauts et des bas soq dafa nekk ci ay baa Fils de Balla nekkul ci ay baa bay gestu soq bëreewul ak moom loolu ñun staff bi dañ ko décider du guddi yi la ñuy bëre. mais Pape Nek man gisuma maanaam ragal ci staff Fils de Balla ak wala ragal ci Fils Balla ba tax ngeen ngeen rejeté soq ko waaw dama ne la yow ragal. ragal dina daan général Malika. avec la manière biñu ñu ak mom ragal dina daan goro sok avec la manière ragal dina bëgg franc nañu de deug rek njaago or bu ñak caaxaan bobu nek champion koku koku koku ragal dina bëgg njaago or boobu waxa de deug rek nak lamb nit ku ragal di nga ne franc la bëgg a bëreel Fils de Balla depuis 3 ans ngi ni mi xatraay franc rek la bëgg ragal dina bëreeg franc dina bëgg a franc nañ waxante deug rek franc mom xam mosoo deug ragal bu koy bu koy buy tuddu turam ci boo xoolee ñi bëgg a moom sax bëriwul mais nu mu de Balla fi nekk depuis trois ans teg ko pression bëgg a moom kon xam ne waxu ragal moom nañ ko jël teg ko ne lee. mais ñàkk pare ci un mois bi ngeen bëgg jël combat tamit est-ce que loolu feeñu si. yàlla ko ci mois. Fils de Balla ñàkkul doole ñàkkul bëre ñàkkul contact te boobu ba léegi mu ngi coqi coqi kon tey un mois bi bu ñu ko jëloon bëgg làmb ji rek mu nekk beneen journée barki Serigne Sall bu ñu ñëwee arène nationale ñu xam ne Fils de Balla ñëw na. mais on dit vrai tey la moo tax tey bëggoon na bëreeg soq. non soq vraiment soq période bii ñu toll Fils de Balla moo mënul bëreeg soq. ndax lan non soq dafa nekkul ci dara. Ah. mënoo jógee presque soq six ans yi nii amul victoire. soq kañ la gëj ab victoire gàmmu gay soq ci franc la jógee daanu fa. jóge ci mar marle match ni nag marle ñëw ci Jackson Jackson reprise ko mais kooku kooku lan la def ci làmb période bii lu mu war a bëri fii sa dëgg làmb boolewu leen Fils de Balla nag toppoon na communication bi bu bëggoon faj mer mais SFM duñ ko seetaan Fils de bala fi ñu toll nii am na ay yeneen adversaire potentiel yu taxaw ci kanamam yu ko làmb mën a booleel mais du soq. soq mere na leen trop. waaw non dinañu meree nag xamul tax. fils mere billaahi bis bu combat bi taxawoon dina leen ko wan. soq na góorgóorluwaat ba ci kanam mbaa mu xool ci booy yi ci géejewaay yi waaw Sokh daal nañ koy encouragé di ko wax ni yàlla ko yàlla defal jàmm champion la day neexal làmb nitu mbër mu mag la. daa mel ne état ngeen daw de. non ay daanu yu daanu yëpp ci état bi la ko daanoo di. six ans ngi nii ngay daanu ci sa état bi Sokh fils de Balla de xeetu bëre bi muy bëree. Hmm. bis bu jàppoon soq arène nationale waa Pikine génn ci soq. soq nee na bu ko bu combat bi taxoon da koy duma du ko sax du ko sax euh, bëre moom. soq da xoola bëgguma sax ñuy focus nañu waxtaan ci li nga xam ne moo yàq combat bi na xamul ndax Fils de dafa mbay kilifa. topp na communication bi aalu jëli avance bi ñëw bëgg ñoo pour ne ko ne nañ ko bàyyi mu corriger soq. mais itam staff bi tamit dañuy waxtaan mais ba ñu waxtaan waxtaanee dañu ne carrément bisu Balla Gaye 2 bi dara jarul ñu ñu ciy dugg. ndax Balla Gaye ñun ñëpp a taxaw tey takku ba dëgër bëgg mu daanal ñu tafaatin jël bu rëy duma ko daan ko comme d'habitude 3-0 lañ bëgg ci moom. daan na ko ca Mbapat daan ko ci du duma ko daan ko ci arène gii te troisième bi mooy gën a ñaaw. mooy gën a ñaaw léegi ndax tey avance bi ngeen delloo mi ngi waat ci yéen pour ñu utale mën adversaire bu bokkut ak euh, journée Tafatine Balla Gaye 2 wala. non xam nga waa Alburaax ñooñu suñuy deret lañ ñooñu nag ñoom liggéey bi du jeex. ñooñu Fils de Balla seen doom la seen fiis la ko quoi amuñu ay problème mu avance ak ay kii ñoom nuñ ko bëggee rek noonu lay demee incha allah bu ñu bëggee beneen combat moom la bu ñu bëggee beneen date noonu lay demee ñoom nuñ ko bëggee rek noonu lay demee ndax alburax du ñu xëccoog ñoom ci dara. mais ndax pare ngeen budul combat Balla Gaye Tapha Tine bu dee beneen date pare ngeen jël soq bu rek moom. non soq guddi ñu toll nii pare wu ñu pour bëreeg soq. ah mais la non dañ ko bëggul rek. ndax lamb tamit mais Cheikh da ngay toog nii def say émission nii taf yëngal rek ñu jox la benn mbër bu la neex. lamb tollootul foofu de. fii sa Balla dafa am encadrement bu wóor bu ne ci ginnaawam. am staff bu koy jàppale di ko dooleel di ko wax fi mu war a jaar mais mbër da ngay am plan de carrière mbër lamb choix la. da ngay teg say dam yi ni ñii ak ñii laa bëgg a bëreel kii bu ma ko daanee daan ki daan kii dama war a dugg fii dama war a yegg fee. ñun dañoo am suñu plan de carrière benn booy du ñu perturbé. Mm-hmm. fii gis nañ fi Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye ñu gënoon sonal fuuf gis nañ fi ku ne. moo ñu gën a sonal foofu Zambala gis nga waa këram ni ñu sonalee mais lamb est-ce que loolu loolu loolu tëgg lamb tey ñun ñaata mbër lañ bëgg a bëreel munu mënuñoo jot ci ñoom. ñu ngi ni bëgg a bëreel Franc te mënuñoo jot ci moom. lamb loolu la rek da ngay xool mbër de kii bëgg naa bërek moom. te kenn du ci mun dara nag. ginnaaw diggante mag Franc wala ba ginnaaw diggante mag Sokh dañ koy Kura léegi a part euh, Sokh kan mooy adversaire Fils de Balla. ah mais Fils de Balla premier adversaire Franc ngi nii amul combat. ah mais Franc. daan Bombardier barki Demba Ndiaye. waaw Franc bu bu bu bu bëreewul ak ñun amul problème. duñ ko forcer nag comme ñi ni ñuy forcer. Kouenchi mi ngi fi. Forza mi ngi fi. waaw waaw mbëri bëri nañ fi de. Fils de Balla ñi mu war a bëreel guddi ñu toll nii. am na ay adversaire potentiel yu taxaw ci kanamam yu bëgg a bëreel. Diène sunu adversaire la. jeen kéré bon loolu sen sen côté la taxawé nak mënu ma ci sori nak ci ñom la taxawé promoteur yu bari bëgg nañ ko mais papa mo xawa ragalé boy bi xel. ah papam daa xaw a ragalee bi xel ndax xam na ni xam na ni jeen mënul ci boy bi dara kat. Euh. xam na ne Diène bu ko bu jëloon fi sa Balla moy xam na ne day dellu ci ay natou euh. te xeyna debit bëgg na relancer wat domam do ko ci forcer momit ah. lamb du force da ngay am adversaire ne ki bëgg na bërek mom hmm. promoteur yi am ñuko bëgg doxo démarche ko bu soté baxna bu soté wu ñu xam ne la yalla dogal waaw ah, mais vraiment nag mbër kenn du Ah, forcer waaw. am na solo kontaan naa ci yow looy tàggatoo. waaw bon ñu ngi sant waa géejawaay yëpp di nuyu waa géejawaay yëpp di nuyu sunu papa di nuyu sunu yaay di ñaanal Sénégal ñëpp di ñaanal Balla de 2 ci bis bii mu jëm sunu borom may ko ci ndam lu kawe njortam waaw bëgg nañ mu jàppal ñu tafaatin nii bâtiment bâtiment lu te du dara eh. waaw bëgg nañ bu ko jàppee mu def ko lu metti ndax ndox du bàyyi yoon. waaw moom na mu ko tàmm di def. bu ñëwee waaye yëpp dinañ ko gunge mu defaatal lu ko. Mm-hmm. waaw di sant Aziz Ndiaye bu baax ak Baye Ndiaye di rafet lu seen liggéey ak seen taxawaay ci làmb ji Sénégal ñëpp kontaan nañ ci ñoom. waaw leen wax ne Fils de gi noonu seen Fils de la boo ko soxloo ci beneen combat incha allah waaw ngeen bëreloo ko rek te xam ne booy bi vraiment journée boobu xaju ci waaw mënul bëre ci journée Balla Gaye bii ak ni affaire yi seere ak ni mu demee. ñu comprendre ko nak xam ne ay mbokk mako bëggul nak pour man nak mbeur boo teggal tamit ay mbokk mak ay safa mak ay supporter ñepp ci and supporter amul supporter Fils de Balla bu nek Sénégal wala ci diaspora bu bëgg combat boobu depuis deux jours ngi amuñu jamm ku ñu wo loyal ni doy sokk sokk tojul fenn delo len avance bi kenn bëggu ko lamb ju kenn bëggul nak lokoy koy lamb ju say supporter bëggul sa staff bëgguñu ko sa famille bëgguñu ko say xarit bëgguñu ko lolu lamb ju lu ko nit di doyee di ñaanal mbeuru géejawaay am combat yëpp ku ci mel ni Jackson ñu ngi koy ñaanal yàlla ndam lu sedd guy e, caatu Daawda Fall maa ngi koy ñaanal ndam lu sedd guy ñaabu ndaw Papa Jine suma mbër mi nag maa ngi wax Sénégal na ko jëpp ñaanal yàlla may ko ndam lu sedd guy moom it ndax moom mooy suma mbër di ñaanal booy ñoom macca booy yi am làmb yëpp waaw di leen ko ñaanal di wax waa Sénégal nag ñu comprendre situation bi fi Zabala nekk bëggoon na làmb ji trop ndax nit ndax soq poussé na ko ci ay communication ba mu aalu ba jëli avance bi kon kooku xam nga ne kooku ragalul ku yokk su guddi taal sa oto dem jëli sa avance kooku kooku kooku ragal na wala ragalul mais nag estafam moo bëgg làmb ji ndax soq tamit ci li mu bëgg a bëree dafa yomb daanoo kenn topp ci communication bu normal rek taf yëngal site bu ne nga woo ko taf yëngal rek bëgg jël carrière bëgg ko gérer ak micro carrière dañ koy gérer rek ay victoire def ay performance di daan say moroom di bëre di daan mais nag doo jël carrière bu koo teg ci ay pexe moo tax Fils de Balla estafam delloo avance bi ndax am na ay adversaires yu gën a nekk ci làmb jën kay ngi fi Euh, Quench booy ngi fii ñëpp a ngi fi tey Quench bu ñëwee Fils de Balla da koy tàllal loxo rek mm. moom gis nga defet gi mu jógee da ko Alioune Seye def fi ñu toll nii sax ma ngay ñu ngay hésité dañ koy jël ak duñ ko jël mais Quench moom dañ koy jël moom bu ñëwee dañ koy may chance mm. waaw ndax ci li mu jógee moo tax daw ba arène nationale ànd ak gars ma mafia bi ñoom daam sala di ko ñaanal suma xarit boobu borom oto yi ndax tànk bi fa yi da doon métti ñu ngi koy ñaanal bu baax di nuyu Yaya di nuyu Landing di nuyu saar bu fiis de Balla di nuyu ñoom mbay jàlloo gars yi jàppale fils de balle ñëpp Ismaïla Alain Ali borom yi ñu ngi koy ñaanal ñoom Mams gars yi nga xam ne dañuy sonn ci fis de balle yëpp nekk ci jaspora bi waaw ak waa Sénégal supporteru fils de balle fu mu nekk rek ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ngeen ñaanal mbër mi bu Balla Gaye génnee ci combat bi àdduna ñëpp dinañ xam ne fils de balle pare na te bis bu ñu ñëwaatee arène nationale dinañ xam ne fils de balle pare na. incha allah Thierre maa ngi lay kontaane lu bari 4 bi 4 bi incha allah léegi rek yow di nga ci jot eh. yow baa pare ga rek ah, yow boo paree rek pare yow boo paree rek pare nañ incha allah yow ci ñun nga bokk ñu ngi lay encouragé baax gis nañ liggéey bi naaj na set di nuyu sa patron Kàjje moom suma xarit la jaajëf Kàjje ak waa famille bi yëpp ETDR établissement Touba Darou Rahman ci liguey ay bâtiment lañu ko ragné liguey bu taaru lol té am qualité lol ñu dëgmal nak liguey bu yes mbokk mi déglul li travaux de réhabilitation du tribunal grande instance de Thiès ñu war ko defaraat ba mu ñom ci anam yi mu gëna baxé baaxee mbokk yi bu ñu jógewee fofu nak dañuy demaat ci benen travaux de réhabilitation ci tribunal bu grande instance bu Mbour defaraat ko ba mu gëna bax def ci ay étanchéité de dernière génération def ci peinture yi gën ci peinture yi ba nopi teg ko ci ay loxo yu wóor militaire de Barigny, bâtiment alimentation avec construction d'une fondation micropieux mbokk fondation micropieux nak moy li nga xamanteni ni bâtiment bi du tegee ci suuf si da ngay defar micropieux yi ba noppi dal di jël bâtiment bi teg ci kaw fondation ETDR du yem foofu ndax dañuy dem ñàkkurab dem dem golf construction bâtiment de maison ci anam yu mu gëna ci dernier génération fondation yu muccu ay liggéey ko ba mu gëna bax ko ba mu jamono li commencé ci fondation coulage ba ci finition yi établissement Touba Darou Rahman daf taxaw ba mu yem ETDR établissement Touba Darou Rahman travaux de bâtiment BTP génie civil fourniture de matériel prestation de service ñun ñoo ci bu ñu soxla nous mën 77 575 50 25 le 33 824 57 43 ETDR accessible ne pour nous. une adresse magnifique ngi fii ci technopole Chiono arène nationale villa numéro 406 ETDR moo Samu Sabatima, sàmm sa am durée de vie bu Gaï, kon Gaou ETDR ndax nag